conférence de presse bi nga xamante ne rek ñoom ñooñu ñoo ko organisé woon nekk ab plateforme daal dinañu insisté nag ci nu mu gën a gaawee ñu daal di amal élection présidentielle ci atum 2024 bi laata rek Macky Sall di jóge ko ci bopp nguur gi ñoom représentant aar suñu élection rek daal dinañ yëkkati seen kàddu rek wane nag seen position ci seen jàkkaarloo bi nga xamante ne doon nañ ko def ak uh, taskatu xabaar yi ndiki tey jii foofa ca diwaan bu Dakar ginnaaw nag mbir moom ci jëmi boppam moom moo ko daal di sàkk woon ginnaaw ba mu dooree ni ki 16h waaye nag fukk ak juróom-benn candidat ci fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xamante ne conseil constitutionnel nag daal dina leen retenir ñoom nag nanguñu benn yoon boobu la dialogue demuñu sax wuyu ji ca boobu la eh, dialogue mbir mu nu mel nag mel ni am na ab critique ci décision bi nga xamante ne rek moom la président daal di jël ñeel nag convocation dialogue national bi ngir fixer datu élection présidentielle membre yu nekk ca plateforme ba nag ñu ngi yëkkati seen kaddu rek ne ñoom daal mbir mu nu mel daal dafa mel ni rek euh, dañuy leewaatoo waaye nag ci seen jëmmi bopp que ne décision bi nga xamante ne conseil constitutionnel daal dina koy jël niki fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu nekk ci mbir mu mel nag ñu ngay woo rek ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy haute juridiction ñu jël seen responsabilité nag fexe amal élection présidentielle ci nu mu gën a gaawee ñoom membre a suñu élection yi nag ñu ngay daal di dëggal rek njëriñ bi nga xamante ne rek moom lañ daal di am waaye nag di prévenir ak dànkaafu bépp désordre boo xamante ne rek mën na tukkee ci yooyu les élections ñu pousse mu nekk ay conséquences yoo xamante ne rek bu boobaa du nekk lu neex lool ci biir réew mi di kat yi nga xamante ne rek ñoom ñooñu daal dinañ koy yëkkati euh, kuréel gi nga xamante ne rek ñoom ñooy aar suñu élection jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen